waaw mooy hmm? li may damay damay rebondir rek ci ci ci li ñuy wax c'est-à-dire hmm. tey jii tey ji on vient de recevoir hmm. euh, l'information selon laquelle Ousmane Sonko Ousmane Sonko placé nañ ko en garde à vue c'est-à-dire que léegi dañ koy garder à vue 48 euh, heures après dañ koy yóbbu ci procureur ça veut dire beneen dossier commencé na juddu cest à mooy li ñu doon wax léegi c'est-à-dire que il faut que il faut quand même que ñu essayer Euh, li tax par ñii di bëgg rencontre wu pour def conférence de presse et consorts c' est que sûr que ñoom aussi après cela dinañ def benn plan d' bu nga xamante ne moom mooy loolu. donc euh, mhm. man appel bi ma waxoon sànq rek dama yaakaar ne jusqu' à présent le procureur a toujours les cartes en main. Mhm. et war na mën a euh, je pense delluwaat ci ginnaaw c' est pas c' est pas c' pas encore trop tard. Mhm. pour que affaire boobu mu jël teg ko ci suuf. xam nga. juge d'instruction du huitième cabinet continuer liggéey bi nga xamante moom la commencé waat mhm. je pense que dalum réew mi mhm. également en dépend et je pense que moom mi nga xamante moom mooy l'avocat de la société mhm. mi nga xamante moom moo war def lu tout ba trouble à l'ordre public du am moom moo war moom également du def ay poser ay actes nga xamante mën na pousser à ce que population sénégalaise di dem ci trouble à l'ordre public boobu donc jàpp naa ni ce dossier bi nga xamante ne commencé nañ ko enclencher contre Ousmane Sonko boobu franchement je pense que ko mun teg ci suuf. et que ñu continuer liggéey bi nga xamante ne juge d'instruction bi def euh, huitième cabinet euh, def na ko. Mhm. parce que boobu il faut que mu dem jusqu'au bu parce que sénégalais. Mhm. sénégalaise. Mhm. moo jàpp ni dañ ko tooñ mu dem porter ji plainte. am na droit à ce que ñu rende ko justice. voilà mais nag buñ ci yokk lu nga xamante après franchement wallahi kenn kenn kenn kenn ci réew mi. Euh, du ci am gëneel daal te je mhm. pense que réew également ñëpp ko bokk te ñun ñëpp on a intérêt à ce que mu daal à ce que mu daal loo xamante ni